وسلم دائما أبدا على حبيبك خير جل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن الخير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم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 عثمان ذي النورين من كملت وجد لعثمان ذي النورين من كملت وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المآسين في دارين والظفر ولي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر مولاي صل وسلم زينة وزبير سادة عراد وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبل من زالت به الخيار والآل والصحب والأتباع عاقبة ما جن ليله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 المختار في القدم وصليا يا إلهي مجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي مجزيا أبدا عنا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ginnaaw sant suñu borom mi nga xam ni moom moo ñu xéewale binduñu ñu doon ay mbindeefam waaye yamu ca mu xéewale ñu def ñu ñu doon ay doomu aadama ñu sant ko ca bu baax yamul ci loolu mu xéewale def ñu ñu bokk ci xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te kuntum xayra ummatin uxrijat linaasi taamuruna bil maxrufi wa tanaawna anil munkar wa tuuminuuna billahi walaw aamana ahlul kitaabi lakaana xayran lahum minhum almuminuun wa aksaruhum fasiqun sadaqallahu alazim waaye sant ko bu baax ci li mu def ñu bokk ci xeetu yonent bi ba pare doon ay jullit mënoon nañu bokk ci xeet wi te du doon doomu aadama mënoon nañ ci bokk doon ay doomu aadama te du doon jullit waaye ñu bokk ci doon ay doomu aadama ba pare doon ay jullit waaye nag sant ko bu baax a baax a baax ci lim ñu boole ci njabootu abil abbasi ahmad yi sant ko itam ci li mu def suñu naanuwaay ci kër Seydina Cheikh doon Cheikh Seyd al malik Malick radiyallahu boroom xam-xam boo xam ni gisoo koo ko mën a tëkkaleel ci xam-xam waaye ndeysaan ci mbaaxam ak yaatalam ak bëggam xam-xam ak honnêteté مجل بردة المديح بو محمد البسيري بي ماي نيو سانسو فكي فان نيو نيك تي بردة بي ريك ديكوي برد ريك با فوكل باك بن نيو نوبلو فوكل با اك نيار نك نيو كومانسي نك واخ دغ يالا غام تي تيرم بيغا خامني موي خلاص الذهب في سيرة قير العرب nga xam kon yooyu yépp suñu borom may ñu jar nañu sant ko ci te it bu ñu fàtte alxuraan nee na wa in taudu nixmatallahi la tuxsuha xëy bi nga xëy rek yëngal sa yaram mu yëngatu loolu mënoo ko fay suñu borom xam nga bi yonent bi demee isra wal mi'raj te tey sax moom la sëriñ bi jàngale tey bi mu demee isra wal mihraj ya ca yoon ba yépp yàgg nañ ko dégg ci daara yi waaye li ñu ciy jël tey rek comme bind moom mooy tolloog temu journée bi mooy tolloog thème centralu gàmmu gi mooy tolloog thème centralu burde yépp incha allahu bi yonent bi demee isra wal mihraj bay ñëw suñu borom dafa am lu mu ko jox daf ko jox sërice bu am solo te sëricë boobu nag dëgg-dëgg mooy tax ñu xam ni kii jullit la mooy taxit ñu xam ni kii du jullit te mooy julli balaa ma ciy ñëw ci tem bi ñu gis ni suñu borom nga xam ni moo bind ñépp yilif ñépp moom moo njëkk tere ñu indi ci penc mi lu dul jàmm wa taqu fitnatan لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله سديد الحقاب ndax buñu créer fitna ci yarax suñu borom bu yónni jibril muy ñëw wala muy yónni mikail wala asrafil wala asrail pour mu ñëw rek les situation bi su ñewé mom capacité du mëna yam ci ñi nga xamni ñom ño tal day bi su ñewé day bale rek lu mu romb da ko yobalé mu fitna baxul moom suñu borom mu bind ñett ñett la bind wallahu xalaqa kulla daabatin min ma in fa minhum man yamsi ala batnihi wa minhum man yamsi ala rijlayni wa minhum man yamsi ala arbahin yaxluqu la ma yasha xam nga li tax suñu borom bind ñett yooyu ba pare kenn ku nekk mu tàqale la ak sa morom ñi mu njëkk a wax ñooñu nee na seen biir la ñuy doxee xam nga kuy doxé biram, boko xolé da ngay yakar ni ki mom foko dabé rek man nga ko def num lula neex man nga ko dab ray man nga ko dab dor man nga ko dab sax japp dugal ci sa poste parce que biram lay doxé waye sula jaan rombon nga dem teyé ko ba mu mat la di nga xamni yalla def na ci mom secret motax ñom pouvoir mystique la len jox légui mu jox ñoñu pouvoir mystique waxagul ñi mu jox pouvoir physique wax ñi nga xamante ni xel la leen jox te mooy doomu aadama mu jël doomu aadama def ko ci digg bi jël ñi nga xam ne ñeent tànk lañuy ñuy doxee nga xam ni ñoom lu ñu am seen doole moo leen ko may lu ñu am rek seen doole leen ko may fi nekk nii gaynde mënta mënta def lu dul utiliser dooleem su bëggee dund léegi nag ñun ñett ñooñu nga xam ne ñoo bokk pénc mi lii bokk na ci liy waral fitna di gaaw a am kenn ci ñun bàyyi roolam ñëw ci roolu moroomam te souvent doomu aadama moo ëpp lu muy bàyyi roolam di dem ci roolu ñaar ñi ci des te pourtant li tax yàlla teg doomu aadama ci milieu bi mooy pour bu soxlaa ci mystique bi nga xam ni moom la ñële am mu mën ko utilise waaye fekk mu jiital xelam su ko utiliser te jiitalul xelam yàqu-yàqu lay jur bu soxlaa itam li nga xam ne mooy capacité physique bi nga xam ne moom la ñële am mu mën caa jël mais mu jiital xelam su ca jëlee te jiitalul xelam yàqu-yàqu lay indi xanaa kon léegi war nañoo jàng ni suñu borom def na équilibre bu am solo waaye moom mi nga xam ne nag xel la ko jox moom doomu aadama mu mën a utiliser xelam ba jàpp jaan tëj ko ci benn verre di koy seetaan te du ko gaañ mu mën a jàpp gaynde bi nga xam ni moo ko ëpp doole tëj ko ci benn kaaf di koy seetaan te du ko mën a gaañ nga gis ni kon doomu aadama féeg mu ngi téye xelam di ciy liggéey penc mi du am benn désordement jàmm rek a fi am waaye léeg-léeg ñun ñooy bàyyi suñu xel mu rëcc su rëccee nag ci ñaar yooyu lay dem jël benn te bu mu ci jël te jiitalul xelam yàqu-yàqu lay indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la réussir loolu la réussir moo tax bi ummu jamil di tibb mbalit di koy sotti ci biir këram jëfandikoowul dooleem moo ëpp doole ummu jamil ummu jamil jigéen la yonent bi góor la moo ko ëpp doole mais jëfandikoowul dooleem xelam la jëfandikoo donte ummu jamil jàngul ci bind bi mais ñaata junni ñaata millions yu doomu aadama ñooy jàng ci ni nit ndekete mën na laa def loo xam ne boo muñee dina am récompense récompensement bu la suñu borom di jox muñ gi mu doon muñ yooyu yëpp moo tax yàlla jox ko inaa ataynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna saani aka huwal abtar léegi nag ñu ñëw nag loolu benn synthèse da woon rek bu ñu doon def pour ubbi débat ñu ñëw nag ci thème bi dëgg xam nga suñu boroom mi nga xam ni moom moo ñu bind ci ay turam daf ci bokk salaam daf ci bokk salaam salaam ci turu yàlla yi la bokk kon xam nga ni suñu borom soxla na jàmm moo tax mu tudd jàmm waaye itam fan lañu suñu boroom woo ci ban kër lañu woo ci këru jàmm wallahu yaddu ila daari salaam man mi len bind bokku na ci samay tour jàmm waye itam fi ma len di recevoir daru salam la tuddu wallahu yad'u ila daari salaami wa yahdi ma yasawi ila siratin mustaqim waye mbokk yi nga xol sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu deme isra wal mi'raj bay ñëw bi mu deme bay ñëw julli la andale julli bi mu andale soo dee julli pour nga yëg ni julli nga il faut nga wax asalaamualeykum feeg waxagoo asalaamualeykum mënoo yëg ni yow julli nga mënoo koo yëg waaye ci biir julli gi dinga wax asalaamualeyka di dinga wax asalaamualeyna loolu programme la programme la loolu rek doyoon na sëkk doyoon na sëkk loolu. xam nga boo dee julli da ngay wax alhamdulilahi rabil alamin ginnaaw boo waxee bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñoo maa ngi sant yàlla mi nga xam moo bind jaam ñëpp arrahmaani rahim mooy mooy aji xéewale mboolem binde yi ci àdduna bi suñu demee ba yowmal xiyaam mooy seet ñi ko neex mu àtte leen ci yërmandeem malik yawmi diin mooy buur bi nga xam ni mooy buur bésu dëgg ba moom rek moo fay taxaw limanil mulkul yawma lillahi wahidil qahar léegi yaa ngi julli nga wax assalaamu alayka même bu fekkee yonent bi ngay waxal itam sa moroomu jullit nga adressé baat bi ki nga ne assalaamu alayka ñaan yaa ngi koy ñaanal yiw ki nga ñaanal yiw ba pare xanaa di nga rusa dem toog ci sëriñ di koy xaatim wala nga yëkkati yat di ko koy dóor wala nga yëkkati kàddu gu ñaaw teg ko ci deram nga pare ci loolu nga ne assalaamu alayna ñun ñëpp yàlla ñoo ngi ñaan nga defal ñu jàmm ñi nga yéene jàmm ñëpp bu fekkee ni li nga leen yéene dëgg la ci sa biir xol soo génnee rusa wax ci ñoom lu ñaaw wala nga a def ci ñoom lu ñaaw mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko suraxata demee dabi suraxata bi mu dabee yonent bi ñëw woo ko yonent bi wëlbatiku jàkkaarloo ak moom mu ne ko dama bëgg ñaar laa soxla parce que Abaa Xakam dafa teg téeméeri gëléem te bëgguma ku ma njëkk ci téeméeri gëléem yi bëgguma itam téeméeri gëléem yi raw ma ñaar mooy am jàmm am da ngay ñëw ñu ànd dem màkka jàmm na ñooy ma jël samay téeméeri gëléem wala nga nga riposte ma dagg sa bopp yóbbu ko jël samay téeméeri gëléem bi mu rëppatalee fasam suñu borom dafa jox yonent bi ne ko joxal ndigal suuf mu jox ndigal suuf suuf wan na tànku fas wi mais waa ji daf ko ñaan njëkk mu bàyyiwaat ko bi mu ko bàyyee dafa rëppatalaat fasam ut si ko yonent bi waxaat ndi joxaat ndigal suuf suuf wan naa tànk yi mais cette fois ci dafa wan naale moom ay tànkam moom mi ko war mu ne ma gàttal rek mu ne yonent bi soo ñaanee sa suuf si mu bàyyi ma su ma demee màkk dinaa wax yow yaay kan pourtant bi suuf wannee tànk yi yonent bi mënoon na régler situation bi foofu parce que moom daf ko doon rey si mënon na wax ne rek damay jël légitime défense ray ko comme ni ma doon bëgg ray waye daf ko ak bopam mu ne ko suma démé Makka Dina wax Wah Makka yow yaay kan yow mustafa bëgg jamm motax bi mu démé Makka xolal Limu sédel yonent bi yonent bi bu topon xolam te jitalul xelam sédé bobu mën nako bañam bi mu démé Makka mom mo taxawat ci bir Makka ne Aba Hakamin man maa lay waatal man maa ko dabi woon man ಕೊಂಡಿರುವಲ್ಲ gis nga seede yooyu mu sédé yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te sérigne bi way ko léegi hudan kawsarun qad qasahu allah kawsaran bihi yantafi yawm al alqiyaami xalilu nit dundu nak yonent bi ba jóge fi bay wala ba yonent bi jóge fi mu don julit te sédé wu lu toll ni yonent bi فواكب بدا bi daa min hubbi man lam ulaqihi wa bahru stiyaqi lil xiyaami yahulu maam Seydil Hadji متي nee na فواك بدا وونا سما متي توريس من حب تي بغ كو خامني من لم الاقيه داجي غماك موم ماغا بيدي نتو منورا من ماغي تي واون واي سما خول بي منوتو لا دال موك لودول تي مراو دو نيول ماك وبحر استياقي غيسغا جيجو تيوفل يهول داي تيتلو للحيام ادي بغ تي نيوم سين تيوفل ييب تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم لا نكو تيغون موتاخ بغ يونتي بي دينا جامو بالله يا من يريد جنان الخلد يسكنها فقد من طلب المفتاح تحترمي كو بغ دك تي ادنا يالا جيل دا ngay ñëk ut tiabi ji so amul tiabi ji bo ñëwé do dugg محمد المصطفى بابا يا المستوى حاجة شوقي لحب الغير البرايا مظهر لطفي اكرم المصطفى كرماي انت يلا محمد نجني دلا يا يوم القيام مجلنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ngen bal man nak munuy nak sama bay yi nga xamne ñom ñoma yir ni ñu tok ci seen biir di wax lo xamne xamuñu ci dara ñu ngi nuyu imam Alioune Sall suñu bàyyi alxaaji Ibrahima Ba ak suñu bàyyi fay mi mu dendal ñoom ñëpp waaw kay bàyyi Saliou Fay ak suñu bàyyi nga xam ni tey moom mën na fee représenté waa Tiwaawoon yëpp suñu bàyyi Maykoor Samb ak bàyyi nekk ci ginnaaw yëpp ah di nuyu nag góor ñëpp nuyu jigéen ñëpp di bal ñëpp xaq di balu ñëpp xaq lii lañu wow njëkke waaye xam nga temps temps dafa am solo te itam ci ku miin géew way dafay am nu ñu koy defee suñu paree loo fa teg lu dul enchaîner daara ji rek da nga yàqaat lu bari moo tax ñu téye woon loolu rek enchaîner daara ji di beral nag nuyoo ak cant bu baax a baax suñu soxna su baax si nga xam ni moom mooy ñëw rek teg ñun daara ji xëy na yàq yi bari na waaye ngeen jéggal ñu ko rek ñàkk xam-xam ak itam ñàkk fasaaxa moo ñu ko yóbbee waaye bëgg gi moom mu ngi fi di nag bu baax a baax sama bopp te muy sëñ Mamadou Ndoye mi nga xam ni suñu rakk la suñu wëllëre la suñu xarit la suñu lépp la suñu sëriñ la itam suñu sëriñ la sëriñ la moom <laughs> yi muy wax nii suñu sëriñ la yal na yàlla sàmm su ko defee nag mbokk yi ñu sant bu baax imam mu muxaddam yépp rek eh, suñu wayjur suñu sëriñ suñu wasila oustaz Mor Astou Thiam nga xam ne nag wax dëgg yàlla lu ñu xam tey ba mën koo wax ñu koy dégg rek ci làmmiñam lañu ko jële ci làmmiñam lañ ko jëlee waxoon nañ ko fi daaw ah waxaat nañ ko fi ren lépp lu ñu xam ba mën koo wax ci làmmiñam lañ ko jëlee yal na yàlla sàmmal ñu ko yal na yàlla fayal ñu ko yal na yàlla taxawal ñu ko salaatu wasalaam ala rasulillahi yal na yàlla may ñu ñu dem ci gàmm gi ci bismillahi rahmaani rahim yàlla may ñu ñu àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin lu ñu ko fi jaamu yàlla nañu ko may yàlla nañu ko fay yàlla nañu ko nangul su ko nangoo yàlla na ko ful su ko fulee yàlla na ko bind suñuy téere jëf yàlla muñ ci dara upp waaxiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin salaatullahi taxlu kulla xiinin alal muxtaari xaqan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh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 di nuyu nuyu itam mbooloo mu tedd mii ñu fi fekk ndeysaan macha allah. di nuyu imaam yi. di nuyu imaam yi ak ustaas yi. di nuyu di leen jaajëfal xadaratul malikiya bi ñu fi fekk di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. di am am mbégte itam. ak contentement. bu am ak contentement boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye nag amul fu mu yem. macha allah ci burda bu am solo bi ñu fekk fii ci yaraax. bu am solo bii nga xam ni fekk nañu ko fii ci yaraax. di félicité bu baax a baax. di félicité nag bu baax a baax a baax. responsable yi nga xam ne ñoo taxaw ci liggéey bi boobu yi nga xam ni ñoom ñoo taxaw ci liggéey bi boobu ba léegi. satisfaction bu mag a mag nga xam ne di wax ni am nañu contentement am nañu yëg-yëg bu baree bare bu mag a mag a mag boo xam ni ci li nga xam ni moom lañu fekk fii. ci mobilisation bi dal gi. ci mobilisation bi ak dal gi. ak respect charte yi nga xamante ne. ak tamit respect ci xadara yi nga xam ni moom la ñu waxtaane woon ca xadara ba. di wax ne ñun ndaw lañu rek di wax ne nag ñun ndaw lañu rek bu ñu yabal.

liggéey bu am solo bi nga xamante ne suñu maam Seydi Hadji Malick Sy lépp lépp ci liggéey bi nga xam ne rek ngir dundal liggéey bi nga xam ni suñu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu samp na ko fii ci réew mi samp na ko fii ci réew mi te loolu dootul dañ ba ilaa yawmi diin te loolu nag dootul dañ mukk ba ilaa yawmi diin di am mbégte tabaarakallaahu ci thème bi nga xamante ne nañ ko di am mbégte nag bu baax a baax fa tabaarakallaahu ci thème bi nga xamante ne respecté nañ ko. waxtaan nañ ko waxtaan boo xamante ne waxtaan mënu la gën a réussir waxtaan mënu la gën a leer. wax Oustaz Modou waxtaan na ko waxtaan boo xam ni waxtaan mënu la gën a réussir bi waxtaan mënula itam gën a leer bi waxtaan. di ci gërëm bu baax a baax Oustaz Biram Cissé mi. di ci gërëm bu baax a baax seen mbokk mi nga xam ni moom moo nekkoon ci daara ji. oustaz Modou Ndoy nga xam ni moom moo doon wax bi ñu paree itam moom moom modéré ak haj Seexooma Sàll moom sama taalibi la nga xam ko benn taalibi rek laa mu ngi nii ok. di gërëm bu baax a baax ngi koy gërëm ko ndokkeel bu gis nga ci gis nga am na ñoo xam ni fa ñu dëkk ñëpp leen amel njukkal léegi maa ngi koy jëw ci Seexooma Oustaz Makhtar Thiam mosuma gis lu diine xewle te manu ca masuma koo gis man te man su ma ko seedee nag ñu bari war koo gëm te it yaakaar naa ñëpp noonu lañ ko xamee lu diine xewle te mënu ca kenn mësu koo gis moo tax moom mu ngi koy sant bu baax a baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne moom la am. macha allah na yàlla dëgëral ko. yal na yàlla dëgëral ko. lii ñu fi fekk wax dëgg neex yàlla. lii ñu fi fekk wax dëgg neex yàlla. sedd na ci te bu ñu delloo ci ña nga xam ne ñoo ñu yebal muy suñu président wu commission Souleymane Bili Paye. suñu xol sedd na ci lool te suñu delloo ca président wu commission bi muy Souleymane Bili Paye. dinañ am luñ fa yóbbu loo xamante ne macha allah bu déwénee tamit ñi ñu fi fekk rek ñi lañ fi fekkaat duñ fi yabal kenn. dinañ am lu ñu fa yóbbu loo xam ni macha allah bu déwénee lii ñu fi fekk rek moom moo fi continuer du ñu fi yabal kenn. macha allah di leen félicité bu baax a baax nag di leen ndokkeel di jéggalu encore une fois ci kàddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullah